wax dëgg yàlla un journaliste émérite yow moom wax dëgg yàlla kenn dootul nattable ni liggéey nga lu rëy ci réew mi kon nag euh, soo ma woowee ci waxtaan toujours réew mi parce que ñëpp réew mi rek moo ñor. absolument di ci wax lu ñu gëm nag. Euh, te bañ cee xool ku ñu mere ak ko kontaan di wax lu ñu gëm par rapport ak suñuy conviction teg ko nag ci intérêt Sénégal rek donc loolu moo tax ba ma woowee yow damay kontaan ñoo ñu waxtaan. li ma lay njëkk laaj moo di

def seen i examen def seen i tappale euh, daa di fexe rek ba résultat yi baax euh, ñu daal di ñëw daal di bàyyi xale yi amul woon euh, examen nga xam ña nga toogoon ci kër gi juróom juróomi weer ñu kenn woowu leen ñu ne dañ doon def dispositif apprendre à la maison moom musta dox kenn musta gis fenn fu mu doxee xaalis bi ñu ci dugal kenn mus ko audité te gis ñu benn jeexital bu mu am ñu tudde ko apprendre à la maison te yàlla xam na ni ñu nuy seetaan ci jàngalekat yi xam nañ ne loolu sa am léegi nag xale yooyu dañ leen a tëbal classe bi école ubbee ñoom ñoo nekk nii ci école bi ñu tëbal leen ay classe ñoom ñépp ku ci nekk ñu génn seen note de service ne ren bu kenn daq kenn bu école ubbee xale yooyu nag jànguñu dara daaw amul benn programme bu ñu maîtriser loolu mooy situation moom xam moom la ñuy dund actuellement nii te jàngalekat yépp d'accord nañ ne la ma doon wax ca examen ya ne li ñuy def lépp ay tappalee ko lal xale yi jànguñu te daañ leen bàyyi ñu paase loolu moo am ba tey démb rek maa def tourner dans la banlieue ci dans certains lycées de Dakar ñu ne ma li nga waxone mo am parce que niveau bi faible na faible bu jéggi day wa donc rentrée bi effectivement comme ni nga ko waxee def nañu rentrée bu metti moy euh, démarrer nañ le 12 novembre ak légui dañoo waxone déjà premier mois bi nañ def ay rattrapage mais déjà jafé jafé amna parce que xalé yi nga xam ñi ci classe yi amuñu niveau parce que lañ warona jang jàng ko le chef de l'État sax génn na temps yële wax ko def na fi benn sortie wax ni niveau bi daf ko inquiété man leen mi niveau boobu inquiété moom nguuram ñoo ko def parce que jafe-jafe bi yi am ci njàng mi depuis les derniers les huit dernières années kooku fi andi ko du président Macky Sall man des fois bu ñu wax day mel ni ñu koy doog a fal mais moom huit ans la fi def c'est ça aussi la vérité juróom-ñetti at mu ni man damaa bëgg ngeen jox ma réew mi ma defar ko ci bii boor defar ko ci bee boor njàng mi lii laay def ak lee laay def lam waxoon Sénégalais def ko huit ans yëpp. ca lam fi fekkoon ci pilotage à vue ak gën a yàq njàng mi moom ci la nekk ba ku ne gis na ne grève yi metti na coow li metti na jàngalekat yi lu ñu digg ak ñoom duñ ko def parce que dañuy def rentrée. bu ñu def kon kon euh, mu nekk nii am ngeen ay revendications. yu metti yoo xam ne ci kaw taab. yu metti comme yenn yu metti mooy revendication yi nga xam ne moom moo gën a sonal nguur gi te moom day d'accord moom nguur gi ni li mu ci war a def defu ko ci. ñetti poñ yi ci ëpp doole rek laa lay limal parce que leer na ma ne su ma ko fi doon lim duñ fi jóge mm-hmm. mais de, bala ma ciy dugg déposé nañ préavis de grève déposé nañ préavis de grève depuis le le 17 décembre fin mu toll nii euh, euh, nañ ci fin de préavis de grève donc actuellement le chef 20 day réunir bu ñu réunir les différents syndicats ñu xool ban jéego la def pour jàmmaar ak parce que ñun du ñu nangu ñu nuy ni parce que mbas moo am ci dëkk bi su ne seen i àq ak seen i yelleef muñ leen ko ñun duñ d'accord loolu loolu mënu nekk parce que ñoom muñuñu président Macky Sall est-ce que bimbas mi duggee da da da da nërmeelal ay ay institution inutile am budgétivore est-ce que dafa wagné taayu gouvernement est-ce que dafa wagné budget présidence de la république est-ce que dafa wagné est-ce que dafa wagné mi ngi ko def lu ko neex pourtant ñing ci mbass mais légui parce que mom mom mom sénégalais mom à part la ñun euh, ñun ñun dañu nañu nañu japp ne ñun ay dof lañ légui ñun lim ñu amee ñun nañ ko muñ mais mom du muñ mom ak njabootam ak ay ministre am ak ay ay ay ay ay jegeñaaleem ñun li nga xam ne mooy poñ yi ëpp doole mooy jàngalekat boo laaj mi ngi xaar carrière am dañ ko salfaañe depuis président Macky Sall ñëw au pouvoir te carrière u jàngalekat jàngalekat loolu rek la am jàngalekat yi ñi ngi xaar seen acte d'avancement seen acte de validation seen acte d'intégration mooy acte yi firndeel ni jóge nañ fii dem fee kooku c'est le minimum pour liggéeykat parce que loolu soo ko amul doo mun avancer sa carrière da ngay jàngalekat bu toog 10 ans du avancer loolu dañ koo déggoo ak président Macky Sall mu ne woon day dématérialiser moy kene mom day fexé ba gawal ko ba ku ci nekk sa këyit dotul jël temps bam ko waxé la ci génn actuellement kat yu bari buñ amé projet projet bi du bouger projet bi suñ mooy projet pour ñu defaral leen seen acte bu acte bi euh, nek ci circuit bi da mën na faa def presque 7 ans 8 ans parfois mais loolu mënul continuer loolu c'est un point bo xamni dañ ne na dak parce que kat yi ñu xaar ci loolu benen poñ bi moy ñom état acte yoyo jot a kus génn kus néew nga xam ne bu am rappel ay rappel d'avancement wala de validation wala d'intégration actuellement état Sénégal amel na jàngalekat yi lu milliards. nga milliards amel na lu ëpp milliards d'accord nañ ci de chiffre bi contesté wuñ ko amel nañ lu milliards ci ay rappels yi rappel ñuy ñuy wax ñi ñi rappel du xaalis la boo jàngalekat yi la état bi wax ne man maa leen ko waroon a fay mais leb naa ko parce que aw ma amaguma léegi nag di ko leb di ko dajale ba mu ba mu toll ci téeméeri milliards te pourtant mu ngi jël xaalisu réew di ko def ci loo xam da koy passer passer ñëpp teg ci seen bët waaw kon ñun xaalis boobu nañu ko fay ba noppi nag bu koy fay gis nga lu tuuti lim ci comp yenn saa yi fay lu bu koy fay nu mu koy fayee mooy day dem xàppati ko ci digg bi séddee ko jàngalekat bi ne ko dama lay dagg ay impôt loo xam ne amul fenn fu mu tegu ci jaay doole parce que moom jàngalekat bi lebalu ko moom moo ko téye ci jaay doole bu demee ba koy récupérer tamit bu di ko fay jàngalekat bi da koy fay ba noppi tey ma la joxe exemple jàngalekat yi may seetaan xam nañ ne ku ci am rappelu 2 millions mooy xaar nga luñ la amee loon mooy rappel avancement la wala validation wala intégration boo demee bañ la koy fay direction solde bi la dee fay 2 millions yi dañuy dagg 900000 yi boo leen laajee ñu ne impôt la te mun te te kenn amul fuñ ko teg bi ñu ba coow li métti pression métti jàngalekat yi teg leen pression ren xam nga lu ñu mujj def ne waa léegi on reconnaît que les impôts sont élevés kon xam nañ leen doon def du yoon. parce que logiciel boobu ñu ñu ñu teg xam nañ ne logiciel bi jaarul yoon léegi xam nga lu def ñu ne léegi dañuy proposer une solution ñu ne léegi dañuy proposer le principe de l' étalement étalement mooy xam nañ ni impôts yi ñoom ñoo ko dajale par exemple jàngalekat bi xaar juróom-ñetti at ñu dajale ko ci mm-hmm. benn année bu la dajalee lépp ci benn année mais dangay ngay dugg ci beneen grille bu gën a cher alors que yow gañewoo lool ci benn année juróom-ñetti at la yoo doon xaar at mu ne la nga waroon a gañe ñu koy téye ni amuñu luñ la jox di ko di la ko dajaleel ba mu bari ñu jël ko ni la ko xëpp ci benn année pour mu bëri pour ñu dagg la koy impôt dugal ci grille boo xam nga xam ne comme entreprise ni ñuy mel ne la koy gañe donc bu gañee par exemple un milliard buy parce que un milliard la gañe ci benn année mhm. mais parce que ñoom duñ tëb at mu ne dañuy fay seen ngi mel ne comme ab entreprise ne ko woon non léegi li ngay fay par benn année bul ko fay léegi baal ñu dajale la ko ba mat cinq ans bu ko defee mat cinq milliards wala 6 milliards bu ko defee bu ñu koy dagg impôts yi dagg ko ay centaine de millions loo loolu bu ñu ko defoon entreprise yi coow lu jóg mais ñun loolu la ñu def dañ ñu dajaleel ci loo xam du suñ coobare ñun ñoom ñoo ko téye dajale ko ba benn année ñu fayee ndóola lépp. pour dagg ci lu bari dagg xaaj ko ci digg bi séddoo koog yow. ñun leen lii na dakk ñu ni léegi non d' accord nañ léegi daañu ci étaler 4 ans maanaam même boo doon xaar 8 ci 4 ans a wàññeeku impôts yi ñun leen lu tax boo koy tas da nga koy tas ci bu dee yow da ñoo xaarloo te ñun bugguñu xaar ñoom ñoo ñu ko impose ci jaay doole mais buñ la xaarloo kay 8 ans buñ lay fayloo la la la nga warloo ak ñoom at mu ne lan war a calculer par at donc lay wax ni cumul bi temps la mais duñ nangu def loolu dañuy boole lépp doo koy dagg parce que buñ ko boolee taux bi day jóg taux d'imposition bi day élevé loolu fiscaliste yi may seetaan xam na ni loolu. troisième point bi lan la troisième point bi nga xam ni également euh, kii la mooy aujourd'hui yi te point aussi Le ci été ma toftal bala ma dugg ci troisième point bi mooy dañu aussi sur les questions financières mm-hmm. en 2014 président Macky Sall moo présidé rencontre ba bin koy tëj ñu ni léegi dañ ca parce que daf ñu woo sax au palais ñu def benn waxtaan ñu ne léegi ñun nañu li nga xam nguur gi ñun d'accord ñun jàngalekat parce que dañu ci boddi ñu ni nañ ko étudier ñu jël benn cabinet bu ko étudier cabinet privé bim ko étudier mom cabinet bi def ay recommandations fortes ñepp tok fekke mu ni légui léegi yéen dañ leena togn légui nak kon il faut mu am ay solution té état bi avant muy def étude bi mu déggoo woon ni ñett yi dina ko def un étudier le système de rémunération au Sénégal parce que ñeen né ngeen jaarul yoon médecin né nañ jaarul yoon ñu bëri ñi ngi kaas ci katu nguur gi dafa am bot di compter ñu ne kon nañ ko étudier ñu engagé wu dans un protocole d'accord du 17 février 2014 ñu déggo ci ak ñom ak nguuram. Boun Abdallah Dionne moko jité won tous les ministres concernés ñëw tok khatim accord bi ñu ne buñ ko chambaré ba paré dañ ko waxtané lolu def nañ ko chambar nañ ko par un cabinet privé qui s'appelle MGP Afrique biñ paré projeté nañ résultats yi ñëpp tous les syndicats ñu partager ko mu def nak la troisième étape moy ñu corriger les injustices révélées par le rapport par le rapport ñu bañ mu ngi ci table Macky Sall président Macky Sall depuis 2015 ñu tek ko depuis décembre 2015 mi ci table Macky Sall bu ko waxé dem président li day andi ciow nañ waxtaan ni liggéey kat liggéey kat nguur parce que loi bi fay liggéey kat nguur gi mo wax ku ci ne ni lay fayee. loi bobu lan dem jalgati moy la loi 6133 moy wax ku ci ne nan yan indemnité la wara am nan lañ ko wara fayé ban hiérarchie bu ko amé nangam la mérité loolu lañ dem jalgati tégué né ñu bëgg ñu tégaat ko ci raay président Macky Sall nangoo ko étudier ba fiñ tollu ni nii fu ñu waxee rek mu ne moom mi ngi koy xool. pour que ñu ubbi vraiment waxtaan pour xool avec les experts nan la def pour corriger le système de rémunération boo xam dafa am ay ay ay bottes de compte boobu point la boo xam si dafa bokk ci question financière mhm. maintenant sur les la la la la troisième rubrique mon point bi nga xam ne moo lié ak les questions de formation jaay doole bu metti moo am ci formation bi da ngay gis jàngalekat boo xam ne mi ngi comme chargé de cours dañ ko jël ne ko yow léegi instituteur lañ la formé. mais kaay di jàngale ci biir nga yóbbu la Koumpentoum euh, ci benn école élémentaire benn CM nekk à côté manqué benn prof fekk yow bi ngay ñëw def instituteur amoon nga licence parce que am na yoo xam dañu am maîtrise sax doo ko def fi concours instituteur da ngay gis euh, instituteur sax yoo xam si am nañ doctorat léegi bu ko defee ñun la yow ah ñun koy alhamdulilah comme yow yaa ngi ni yore sa licence wala sa maîtrise te manqué nañ profu mat wala profu SVT léegi kaay ñu jël la ci biir CM bi nga jàngaleen ñu fi xam nga loolu système moo ciy bénéficié wu mhm. parce que am na diplôme bu ko permettre mu jàngalee fa te tàggat nañ ko pour won ko na muy jàngalee kon amul problème mais léegi nag bu demee foofu dañ koy considérer toujours comme instituteur duñ ko reclasser duñ ko bàyyi mu delluwaat formation à l'école normale ci diplôme boobu muy jàngale pour mën a génn maintenant avec euh, diplôme professionnel bi ko bi nga xam ne diplôme académique bi may na ko mhm. bu ko defee dañ koy bàyyi foofu di ko exploiter ba kañ da nga ciy gis ko def 10 ans di top, nous statut instituteur alors que nous sommes dans un lycée ou dans un CM est-ce que c'est ça? est-ce que c'est ça? Si nous fu ñu leen waxee ñu ne amuñu nous bi fait une école normale FASTEF pour ñu former ñooñu xam nga loolu jaay doole la donc pour jël que les décisionnaires yi nga xam ont dañoo diplôme euh, CAP yow êtes ngi décisionnaire. décisionnaire am un diplôme CAP 2010 ou 2012 depuis 8 ans ou depuis 10 ans nga am sa diplôme ñom ñu téye kayit bi firndeel ni am nga ko de def nga examen ba jàll. Mhm. légui kayit bi firndeel ni jall nga ñom ñom ñom ñokoy koy heure bu la neexee lañ koy signé. bu la neexee signé ko 2021 nga toog 10 ans après date bi nga ko jàlloon ñu ne léegi même buñ ko signé légui do date défé bi dootul nekk date ba nga jàlloon examen mais date bi ko signé te ñun ñoy wax heure buñ koy signé lool lool du jaay doole léegi jàngalekat perte 10 ans de rappel 10 ans dans sa carrière légui nak loolu boo ci toftalee wax dëgg yàlla formation mise en position de stage yi nga xam ne man yi ma lay wax ni ay formation la parce que jàng pour njàng mi baax fokk ñuy tàggat jàngalekat yi. Mhm. te li ma lay wax ni jàngalekat yi yu bëri ñu ngi ci des milliers d' enseignants ñu ngi jàngale ci classe yi di xaar ñu yóbbu leen formation parce que loolu lañ leen war a defal parce que mooy seen plan de carrière te nguur yi fi jaar yëpp ñu ngi ko doon def président Macky Sall nag carrière jàngalekat yi ba kenn du ci dem formation ñoom ñëpp ñu toog di xaar prof EPS ñoo gën a dee amna corps boo dañ dañ koy créer la création du corps des PCMG bo xam ab décret rek bu ñuy modifier té président Macky Sall signé ko dong mo ci dess pour que ñu mëna créer corps boobu pour mëna faire reverser les MEPS yi nga xam ñom ñi ngi xaar mais loolu rek président Macky Sall mënul modifier décret donc pour dire y a énormément de problèmes dans notre secteur mm-hmm. ba nga xam taxna actuellement syndicats yi déposé préavis de grève légui euh, secteur bi mais amna lenen timit lu xew si li ma jaaxal moy

bi reprendre le 25 juin avec les classes d'examen. xam nga dañ ñoon hmm. def examen ñoom rek ñoo doon ñëwaat bi ñuy ñëwaat santé dafa defaroon benn protocole euh, sanitaire jox ko école yi pour ñu respecté ko booba sax respecté wuñ ko woon quand même mais defoon nañ cay jéego au moins de dispositif de distribution de masque amoon masque lavage des mains ay ci lave mains amoon na amoon na ay thermoflash au moins loolu amoon na même ba noppi éclaté woon nañ classe yi hmm. au moins loolu amoon na pour ñu def la distanciation physique mais loolu pour un mois et demi rek lañ ko def mooy. vingt juin ba examen yi loolu rek lañ ko def. d'ailleurs moo tax seen layalu à l'époque ni looloo tax résultat yi baax man d'accord mu woon man leen loolu tappale la parce que un mois et demi kese lañ éclaté classe yi examen yi lañ ca def ay pexe lañ def lu tax résultat yi excellent woon ci examen c'est parce que bu ci ne bu ñu amoon temps dama lay expliquer lu ko indi ci CFE ak ci BFM ak ci baccalauréat pour ñu mën a am résultat yooyu ñu am ay tappale kese la dëppoowul ak niveau élève yi loolu dama koy wax fépp parce que man ragaluma ku ma mère mais maintenant bi ñu bu ñu ñëwee nag ci li nga xam ne moo am nii ren moom mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans nos écoles malgré tous les discours yi président de la république di wax bés bu ne ak le ministre éducation nationale di wax amul benn école Sénégal booy dem am fa benn dispositif bu ñu teg lan doon jéem sax ca ba ñuy def examen fin fin toll nii man démb dama def tournée dans la banlieue dem naa au CM Fadilou Diop parce que dama choisir CM yu mag pour xool ndax ndax affaire bi parce que le dem dañu leen ñu 5 millions de masques D'abord, je rappelle aux Sénégalais que 5 millions de masques ce n'est rien du tout à l'école. pourquoi parce que nous avons 4 millions d'élèves. 4 millions élèves waxagoo enseignants au niveau hmm. national. waxagoo personnel administratif. waxagoo les PATS mooy ñi nga xam personnel de service hmm. mais kenn xamul nu mu toll. jëlee les fréquenté école élèves yi kese ñoom kese mat 4 millions te 4 millions yi sax teg

pour ñu mëna xex mbass bi bima démé man Fadil Diop dama tok ak enseignant sen salle des profs ni leen man lima gis ci cours bi yeen gis ngeen ko man ñu ne ma 2000 élèves na ci cours bi bi 10 heures xalé yépp yëpp kenn takkul masque mën nga tok rarement gis ben xalé bu tak masque mais presque de lay rire masque doko seen séen kenn takkul masque ñu nek luma 2000 élèves ci biir ki ben enseignant ne ma mais dambo salle graw ñun 95 élèves la ñam ci biir salle yi te salle yoy c'est des salles prévues pour 45 élèves ci biir mbass lolu mo am te ñooñu ño tane yenn école yi parce que xam naa lycée bu nekk à euh, yëmbal le lycée de yëmbal ñu ngi ci 130 140 élèves par classe ci classe man si quarante élèves ñoo fa nekk man samay wax du wax lu ñuy wedd ci njàng bi li may wax ni ku ko wedd demal yëmbal nga dut ci baaraam soo fa jógee demal ci école yi ko wër ñoo yem situation élémentaire bi moyen bi ak secondaire les effectifs tournent autour de 100 élèves donc foofu distanciation physique mënu fa am. Hmm. beneen bi mooy amul ay masque masque distribué wuñ ko élèves té aujourd'hui euh, il faut que les gens comprennent que même lañ doon wax naan ay ay ay ay thermoflage thermoflage moom pare nañ nañ dafa cher jëndatuñ ko thermoflage mom kenn waxatuli waxam lavage mais également amutul ben lavage mais bo am ci mi ngi ci école yi wala day ñëw ci école wax naa ko bi ma euh, lycée euh, Fadilou Diop CM Fadilou Diop mo lay may fekk ben lavage mais ben lave mais buñ tek ci ci ci ci entrée bi alors que tu as 2000 et quelques élèves mais xam lool c'est pas sérieux xam lool mo lay wan lool affaire sabotage pour que ku ñëw rek ñi ngi sal quoi di wane ni ñi ngi jëm dara jëmunu dara et Pape Alé moo presse bi relayé fan yi ni dañu gis ni y a des écoles yu am ay cas. mais am ay cas effectivement mais c'est normal. Euh, actuellement cité nañ école bu fi cité dañ koy stigmatiser rek et puis li ci gëna graw do de loolu Pape Alé xam nga légui lu ñuy décider dañuy nap chef d'établissement yi pour bu coow lu jox manam bu kaay amé nañ ko nepp nëppal loolu moy position ministère. defal nak nga né légui dañuy nap chef d'établissement yi pour que bu ka amé nañ ko nepp nëppal pour que bu ko kenn wax parce que xam nañ ne buñ ko waxé élève yi gën école bi tëj élève ñoo nar a école bi maanaam école buñu ñu constaté yi kaa. Hmm. dañ koy nepp nëppal pour du jox du jëm kaw bu ko defee école mën a continuer fonctionner parce que président Macky Sall ñiy proposer pour mu tëj école du ko tëj parewul pour tëj école bi parce que situation bi mu ne xam na ne élèves yi déjà jànguñu daaw. Mhm. ren bu ko tëjee conséquence ba muy laaj la la ñemewul jël. mooy que ne bu pour mu tëj ko il faut mu décréter l'année blanche parce que xale yi mënuñu toog daaw jànguñu ren ñu ñëwaat tëjaat ba bi bëgg a valider ñaari année yëpp loolu moom bu ñu ko defee mooy jàngu Sénégal yàqu na pour de bon donc tëj bi dafa may conséquence pédagogique ñi koy wax noonu du ñu ay pédagogue moo tax ñu koy wax fi mu doon même bu nit ñi doon dee ci école yi du ko tëj parce que parewul pour des raisons politiciennes pour ñu koy limaleel ci nguuram ka dafa def année blanche par rapport ak pandémie et cetera et cetera. mais euh, timit euh, mais mën na jël ay mesures. mais mesures yooyu moo jafe xamul tax parce que mesures yi li mu laaj mooy ñu def distanciation physique. Hmm. parce que xam nga mbas lañ nekk. xamal li te ñoom distanciation physique mun ñu ko def parce que classe yi doyul. école yi euh, bëri soo fa demee dañoo am déficit enseignant est-ce que xam nga ne actuellement am na école yu bëri euh, yoo xam ne élèves yi grève nañ ndax amuñu jàngalekat dans beaucoup d'académies du pays si euh, hier rek ki ma mujj a waxal avant may tëdd inspecteur d'académie ma mujj a waxal daf ne ma man situation bi ma nekk nii man je crois que maa ngi naxanteeg élèves yi ak yenn établissement yi nekk sous ma responsabilité mais mënatuma dara je crois que on va vers une crise daañ génn morom yi mi dina sama région bu ministère mais foog nga ne couvre-feu euh, bi mu jël solution la parce que couvre-feu sax mi ngi def nii. waaw non couvre-feu bi xam nga lu ci amul sens mooy yow ñoom dama defe ne danoo am lu virus bi bëccëg pourquoi ma wax loolu mooy ñoom bu ñu bëccëg virus bi dangereux wul sur quelle base scientifique la waxee nous ñoo ngi les médecins à travers le monde. les mhm. scientifiques de manière générale même si par Sénégal moom sunu comité scientifique bi moom man dama rus sax ci seen position parce que kenn xamul ñoom lu tax ñu comme ça kenn déggu leen ay benn benn nga ci dégg ñuy wax mais ñemuñ taxaw jël seen position mais wax personne ne comprend ñu ne léegi bëccëg gi def leen lu leen neex 4 millions élèves yi nañ dajaloo ci école yi na marché yi fonctionné. na gare routière yi fonctionner surtout que sax ci période couvre-feu boo xam si bu 17 heures 18 jotee gare routière yëpp bondé de monde. foo dem ñu ngi xëccoo di di mbëkkante ci oto yi di di xuloo ci biir oto yi parce que dañuy duy oto yi ba kekk ba ñi duñu am sax espace parce que euh, couvre couvre-feu bi dafa indi embouteillage bu bu bu yokk ci bi ci ci ci ci ci waxtu wi nit ñi di wàcc parce que ñëppay teel a wàcc di njëkkante waa léegi yow nga ne loolu lépp garaawul. mais bu nga xamné ci sét lañ nek ngi ci biir kër yi nga wala couvre ne lu président Macky Sall comme euh, décision yi ci bëri dañ ko koy euh, dañ parce que mas nag lañ nekk OMS mooy décidé. Mm-hmm. ñoom ñooy décidé OMS dafa am agenda bu leer ci biir ci parce que OMS encore une fois il faut que nous comprendre état yi financé nous wax di roubé OMS c'est des gens qui xam ki appelle des pseudo philanthropes yo xam alal diko ci def nit du jël alalam jël vaccin vaccin bobu fokk ñu def tout pour nit ñi pour sinon ils sont foutus dégg naa collectif anti vaccin anti vaccin mais pourquoi mais ñun li gëm mooy pap Alé ñun mënuñu ay intellectuel ci dëkk comme comité scientifique ñom muselé nañ leen ci seen intérêt man loolu la gëm parce que tamit bu mbir mi bu ko raay raayal ku bañ nit ñi wax te yow nga war a wax da ngay wax. Mm. la nature a horreur du vide. suñu ñu toogee ñoom scientifique yi mais yow Pape Alé bu bu bu élection daan am ñu ne troisième mandat war naa am warta am du euh, les les professeurs de droit dañu dem conclave. Mm-hmm. def seenu document. mais ne suñuy kàngam ñu droit lii lañ décidé ni moom mooy position bi war a am parce que ñene conseil constitutionnel sax ñoom ñoo leen formé. du noonu la. waaw ba conseil constitutionnel tegee seen décision pare ñom en tant que comme de science en droit dañu ñew taxaw atté wax ni li moy seen position. waa pa wa Alé luy té sunu euh, euh, professeur d'université def ko les professeurs d'université euh, de médecine yi formé ñu nuy fat faj ci hôpitaux yi ak ñi di wax tudde seen bop comité national de gestion de l'épidémie wa ñooñu ki leen formé ñom ñom ñi ngi fi ci université Dakar waa léegi mm-hmm. ñooñu duñ dem en conclave waxtaan seen biir ne askan wi bii position lañ gis par rapport ak li xew ci àdduna bi mais dañuy toog ni ni pat pataaral seen pat pataaral dafa déranger Sénégalais yépp parce que ñun lii mbirum santé la du caaxaan. <laughs> mais est-ce que am amati nañ pexe. <laughs> waaw mais non dafa mel ni <laughs> waaw mais mais mais am pexe mais mais papa la nit day war a gëm boppam. yàlla rek a fi nekk. tu es un professeur d'université yow lii xew ci àdduna bi nga nekk un prof en médecine yow ñoom ñëpp mun ñu toog ni lii seen yoon nekku ci parce que askan wi dañ jaxlé parce que dans beaucoup de pays débat bi dafa posé wu ni mu amee la amee benen réew hmm. aujourd'hui dans beaucoup de pays les gens s'opposent à ces différents vaccins et puis ban vaccin euh, dëkk bu nek taxaw di yore vaccin ñuy def guerre des vaccins mais légui te ku ci nek di def lola neex kenn te kenn ci ñoom nag ñëwul la jël ben engagement hmm. kenn ci ñom ñëwul la jël engagement ni man sama vaccin am na telle efficacité sama vaccin ku ko jël doto am covid kenn ñëwu ci jël ben engagement ni man sama vaccin

mënoo xam ban la seen la yi parce que fi xam nga chinois <laughs> français yore américain yore mais au moins ñaar yooyu moom médecin Pfizer et Moderna ñoom dañoo utiliser une méthode inédite qu'on appelle l'ARN messager beneen xam nga président Macky a fait mu discours à la nation ba

yow la PDG de Pfizer nga xam ne moom moo waroon a njëkk jiitu ñàkk ñàkk bi mu defar moom te ñëpp ni ñàkk bi méthode bi mu jaar baaxul ñàkk boobu wóorul parce que musu musu ñu utiliser méthode boobu ci ñàkk nit ci ay mala lañ ko mos a essayé waaye léegi ñun lu tax ñuy wóolu ko fu mu koy teg pour wóolu leen. mais am ngeen yéen beneen problème sax bu gën a grave muy wàllu éducation sexuelle bi ci école coo loolu daam doy na waar de. mais na doy waar foo ko natt weesu na ko. mais loolu lan la lan la dem expliquer ñu ñu comprendre. gis nga coow loolu contrairement ak li président de la république wax ci discours ak euh, le ministre de l'éducation nationale mi ko doon feelu mm-hmm. man damay wax ni coow loolu bi muy jóg yàgg na. ministre bi dani 2018 la commencé woon day jeex 2021 loolu waxul Sénégalais lay am gis nga coowul éducation sexuelle ab document le bu principe directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle bon UNESCO moo ko defar ci turu ONU financé par ñi nu xam nga xam ne soreewuñ gis nga éducation sexuelle bi moom ak pandémie bi soreewuñ parce que ñi pandémie ñoo ko ña ñoo ko ŋànk kuréel yee wuute rek bee doon koo jox OMS hmm. bi ñu jox ko UNESCO mais yépp ci bànqaasu ONU lañ am benn objectif avec le nouvel ordre mondial hmm. Moi, ñoom dañoo gëm

fii tamit c'est la même chose te même objectif yi la mooy foog nga départ ci la finalité bi ñu am ñoom dañoo bëgg a wàññi nit ñi surtout Afrique ak Chine dañoo gëm ni jariñuñ dara àdduna bi dañoo war a loolu lañ gëm ñoom les Illuminati Bill Gates ci boppam moo taxaw defar vidéo am ni Mom xaalisam da koy def ci réduction population mondiale bi day day investir ci implant yi ci ci ci ci euh, planning familial day investir ci césarienne parce que césarienne moy bul jour lu bari. Mhm. toujours limitation des naissances. day investir ci lepp lo xamni day am euh, jeexital ci nit ki baña jour tout ce qui est santé de la reproduction avec les méthodes de contraception moy l'avortement médicalisé côté beaucoup de pays pour ñëw daganal avortement ci sen dëkk donc yooyu yëpp dañ ko def paquet de mesures dolli ci nak LGBT yi. LGBT ñoom na góor a góor sëy mhm. na jigéen ak jigéen sëy toujours même même logique bi c'est parce que bu góor a góor sëyee doom du mhm. juddu doom du juddu il faut bu jigéen ak jigéen sëyee doom du juddu c'est toujours dans la même logique léegi nag ñu ne léegi Sénégal dañoo bëggoon dugal yaa ngi fàttali ko euh, euh, Mamadou Lamine Diallo tekki mhm. bi mu laaleeg ñoom à l'assemblée bi ñu bëggee burux burux bërëxal benn benn le benn benn phrase hein, euh, sërëxal ko ci loi bi ñu doon voté pour euh, pour bëgg a pour ñu accepter homosexualité au Sénégal moom moo ñëw relever ko ci loi bi dindi ko ba député yi xam ne jàpp nañ leen ñu daal di dellu ginnaaw léegi voté wuñ ko ba mu andi woon coow lu bari Sénégal. Mhm. ñu ni kon Sénégal bañ na parce que am na réew yu ko voté ne léegi légaliser nañ homosexualité léegi comme neex nekk góor jigéen ñu ni comme Sénégal daf ko bañ ñu ne comme Sénégal moom daf ko bañ léegi ñu ne waa Sénégal comme bañ nañ ko jaare moom ci njàngam léegi ko defee xale yi suñ màggaalee ni góor jigéen bonul ka yow mën nga nekk góor ba noppi ne man sentiruma sama bopp góor jigéen laa sentir sama bopp dem wuti sa moroomu góor muy sëy ak yow dem tamit nekk jigéen ni man jigéen laa mais sentiruma jigéen góor laa sentir damay wuti sama moroomu jigéen sëy ak moom waa léegi bu ko defee euh, loolu bu ñu ko acceptelee xale yi wax leen ni orientation sexuelle nit ki ça n'a rien à voir avec son sexe biologique maanaam yow sa awra bi la yàlla jox wuute na ak yow li nga doon bu la neexee yow nga am awra góor bu noppi jàppe sa bopp ni jigéen la bu la neexee tamit nga am awra jigéen jàppe sa bopp ni man góor la donc ñu ne léegi dañuy différencier avec le concept genre ñu ne genre léegi dootul góor ak jigéen mais góor la ak jigéen ak leneen leneen nag mooy xeetu mbon yooyu yépp LGBT yi yore donc léegi nag loolu lañ ne nañ ko dugal ci njàng mi créer seen document bu tudd les principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle porté par l'UNESCO et pourtant vous xam nga l'Unesco UNESCO la ko taxoon a. la C'est ñu ko. Mhm. diversité culturelle. absolument mooy ku nekk nga am sa aada ak sa cosaan nga doxal ko ni nga ko bëggee. kon léegi nous voulons ñu bëgg a gis Nous ñëpp faire un ñu document de façon arrogante ñu tuddee ko principe directeur international sur l'éducation sexuelle. Mais président Mag président Macky Sall nee na loolu xalaatu ko xalaatuñ ko ci. ah merci Pape Alé loolu nag mooy Vous bi xamul tax vous dire wax ñëpp que may déglu 2012 yi amoon na sur sur le même thème. au Sénégal 2012 2012 déjà 2013 Amna Benen. 2014 2014 sax moom hôtel Radisson Blu qu'on lañ ko Il y avait l'UNESCO il y avait le ministère de l'éducation ministère de la santé ak ay organisations de la société civile yoo xam ñoo gën a rëy ci njàng mi kenn déggu parce qu'ils sont financés par des organisations franc-maçonniques ñemu ñoo wax pas. wax coow lii kenn du leen ci dégg ñoom ñooñu ñëpp ña nga fa woon di waajal lii bañ koy waajal luñ ca teg dañoo créer lu ñuy tuddee parc lan mooy parc. Hmm. parc état Sénégal président Macky Sall na leeral sénégalais luy parc moom ak ministre éducation nationale bi li muy wax noonu dëppwul ak li am parc mooy projet d'appui au renouveau des curricula pour toftal ko ci principe directeur internationaux yooyu ma la doon wax Sénégal moo ko créé lu nu may wax man kenn du ko weddi hmm. donc parc boobu loolu moo ko tax a jóg pour que ñu méngale

won la ne la am nga droit jël sa yaram def ci lee la neex parce que yaa moom sa bopp xam nga loolu déjà dafa wóoroog li ñu li ñu gëm ñun parce que ñun dañu am suñuy diine. absolument voilà muy musulman comme chrétien yi nga xam ñoo fi nekk fii Sénégal ñun su suñuy diine. su suñuy diine day tere. suñuy diine day tere nit ku sëy d'abord te amul jabar wala amul jëkkër mais ñoom ñun ñëw ni leen kon def leen ko parce que noonu yàlla tëdd tërale mbir mi ñun d'accorduñ ci loolu du xeex diine. bu leer nañ donc loolu projet la bu leer nañ bu nu yore léegi nag ba no yàq xale yi nag wan leen ni dès la bas foo leen def leen lu leen neex. parce que mooy seen yooyu ñu ren. yooyu yëpp ci bokk yooyu ci la bokk maanaam dañuy dañuy dañuy investir école bi fexe ba lépp lu màbbal ngëm-ngëm màbbal diine màbbal valeur lépp lu nit doon gëm ak koy tere xam nga askan pour mu dem fokk moom ay tere moom la ñuy wax frein. Mm-hmm. day am loolay freiné mais bu fekkente ne amul frein yow loola neex def. góor ak jigéen nañ ànd euh, bu heure bu leen neexee même bu ñu sëyul na góor ak góor ànd na jigéen ak jigéen ànd sari xeetu mbon bu nit mën a xalaat lu lay may bànneex am nga ci droit loolu lañ bëgg a lawal ci njàng mi léegi nag loolu ñu def biñ paree dañoo def nag seenu séminaire bii indi coow li séminaire bi ñu ngi ko def le deux 22 23 décembre ca Saly hôtel Lamantin Beach lañ ko defee. woo fa ay acteurs yu bari am ñun fa woowul parents d'élèves kenn woowu leen te musta am ci njàng mi ab waxtaan bu hmm. am te woowuñ leen loolu papa la téyul xel parents d'élèves yi waajuru ndongo yi maanaam ñun ñëpp suñuy doom kuréel yi leen jiite à l'échelle nationale nga am ñaar lañ muy UNAPES ak FENAPES kenn woowu leen fa kay doomu jàmbur yi nii xanaa kay booy booy def lu mel noonu ci doomu jàmbur kay war nga koo woo moom ne ko lii laa bëgg a def sa doom mais hmm. kenn woowu leen fa woo ña leen neex bañ fa demee nag ñu waxtaane pour xool parce que waxtaan yu bëree doon am depuis 2012 mais bii lan moo doon différence mooy bii dañ ko bëggoon nag valider loolu mooy différence bi yee dañ doon waxtaan di di di échanger. sur le document ku ne di wax xalaatam. année yëpp ak yooyu yëpp. voilà ci lël yooyu yëpp loolu lañ doon def document moom pare woon na mais état Sénégal lañ doon waxtaanal ak acteurs yi di xool na ñuy naxanteeg ñoom pour ñu accepter ko bu ñu ko accepter nag ñu mu doon xaar nag validation. séminaire bii nag c'était un séminaire de validation. parce que ñu jàppale. voilà léegi nag jàpp bi xam lu ko andi mooy biñ ko defee le 21 22 23 décembre kenn déggul au Sénégal Lolo, tax acteur, ya fa même bu ci nekk ku nekk yaa ngi taxaw naan nii laa defoon lii problème bi mooy bañ génnee le 23 qui déggu leen le 24 kenn déggu leen séminaire ba jeex ba ñoom ñëpp jóge nañ ci hôtel ba le 25 qui déggul kenn le 26 man ci laa jot document bi man dew ma fa parce que amna syndicat yu fa yu fa demoon yo xam ñoom it nañ dañu am ñun fa représenter. en tout cas dal am syndicat yu fa dem. Mhm. maintenant man document bi mako ko le 26 comme ni ma koy toujours ci yu parce que man ministère bi lépp lu ñuy def damay gëstu ba jot ci comme yéen ni ngeen defee seen liguey parce que non la nit di mel bima fi attaquer Serigne Mbaye sur le rapport de l'ARMP dama def samay pexé ba jot rapport bi fekk pourtant ARMP dindi na ko ci site bi. mais man def samay pexé ba am rapport bi dem porter ko plainte à l'OFNA won woon ko Sénégal yëpp yëg ko ñu wax né loubal na alalu askan donc euh, président Macky Sall tek ci chonchom lolu mo am ci ci ci rapport ARMP bob bu kenn dul werante ay c'est exemple nous la ko jox ñu dem peinture Mariama ba millions. millions peinture donc yoy lañ def personnes 15 millions 50 personnes agne ben agne 15 millions ñu añe ko wa personnes 15 millions par, ah lan la wara xamna ay guilem lañ <laughs> vraiment ah, ay guilem que donc donc nag lii li nga xamné am man ko document ma jang ko ci que yépp mais mané li ko xaar du que kay du xaar dama xëy la 27 rek defar sama audio 9 minutes boobu doon wër àdduna bi yëpp. ñu hmm. jot ci ma reeteet mbir mi. ñëpp jot ci kilifa diine kilifa aada ku ne woo ni ma lii du fi amee pression boobu moo tax président Macky Sall def déclaration bi mu def le 31. li ma lay wax noonu c'était entre le 27 bi ma defee. audio bi hmm. mu circuler correctement 27 28 29 30 coow li bari ci réseaux sociaux yi ñëpp di ci wax télé yi di ci wax émission yi daw coow li métti ci président Macky Sall le 31 mu def déclaration bi mu def pour sëlëm sénégalais yi. Mais le président Macky Sall il a ratifié au plan international gis nga xam nga man wax les principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle, le président Macky Sall ñemewu la taxaw ak UNESCO nan d'accord ci nako bind xam nga 2018 dafa am euh, boobu boobu madame Martinez moom moo doon jiite Human Rights Watch. Mm-hmm. moom moo génn woon benn rapport tuumaal jàngalekat yi tuumaal Jakarta meen yi tuumaal ay militaire wax ne dañuy yegg ci xale yi ba pare teg ca ne nañ dugal éducation sexuelle complète bii ñuy indi nii coow tey ba fekk na booba def nañ ca sax atelier ba pare mais génn seen rapport. biñ euh, Serigne Mbaye am génn daan ni non euh, UNESCO daf ñuy teg pression pour ñu dugal njàngum sëy biir njàng mi ci tout tànk yi nekk élémentaire mais ñun d'accorduñ ci. Ben ben ben, journaliste laaj ko dàmbe ne ko déngale Serigne Mbaye Thiam wax mu non nee leen Serigne Mbaye Thiam loolu mu wax nako ko bind na état Sénégal bind. mu nekk lu officiel. ha ñu ni Dakar rejette ou le Sénégal rejette l'introduction de l'éducation sexuelle complète loolu rek bu ko président Macky Sall waxone man gëm naa ne wax ji fayna mais président Macky Sall du ko def donc il n'ose pas le faire parce que day wuro ak sa signature. Les États ont signé depuis mai 2010, beaucoup d'États ont signé entre mai 2010 et 2013, ces trois ans-là, beaucoup d'États ont signé cette convention-là. Il y a une convention liée à ça. nous, avons signé. Le président Macky n'ose pas dire à l'UNESCO que nous avons. signé, bu dugal njàngum góor jigéen ci njàngum Sénégal moom d'accord ci bind ko na ko bind wax ci jeex xam nga aujourd'hui Pape Alé dafa am ñuy dox ñoo man man bokk naa ci ànd sàmm jikko yi boo xam ñi ngi dox pour ñu criminaliser l'homosexualité au Sénégal mm. mais actuellement looloo gën a gaaw pour ñu def ko wax ji féete boor nañ voter une loi à l'Assemblée nationale comme président nee na ñun nee na leen dem leen nag et puis xam nga Sénégal leen yàq mooy duñ duñu du ñu analyser le discours du chef de l'État mais bu nee nañ dem ak seen xaalis feeñ na l'enjeu c'est l'argent parce que ñoom bu ñu demee moom xam nañ dootuñu ko financé loolu moo gën a xam même si par ailleurs bu dee ci njàng mi kese la parce que mbir mi nag tout est lié c'est pas seulement l'éducation mais éducation bu dee moom kese la les partenaires techniques et financiers UNESCO bokk ci li ñuy boole ñoom ñëpp di ko dugal sunum njàng matul 10 pour cent di leen soxla 90 pour cent wa xaalis biy dugg ci njàng mi Pape Alé suñuy taxe ak suñuy impôt moo moo ko fa dugal sunu xaalis la ñun l'argent du contribuable sénégalais li ngay def di jël carburant ñu dagg la

au niveau institutionnel ñoom d' accord nañ ci loolu il faut mu leer le discours servi par le chef de l' état man convaincre ma man Dame Mbodj li may convaincre mu teg ay jéego yu leer. Mhm. mën a muñ ñooñu liñ koy wax. et puis mën a muñ ci leneen aussi parce que y' a beaucoup d' enjeux à ce niveau donc man encore une fois damay leeral sénégalais yi ni ñoom ñëpp ñi ànd ci lii ñu bëggoon def dañoo yalamal seen ngemb mais tekkiwuñ ko daan wut yenen pexe yon koo jaare pour mu jàll parce que UNESCO du dellu ginnaaw pays ci adopter les principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle nga xam noonu lañ ko tuddee mais mooy jàngal xale yi tout tànk yu amagul juróomi at wala ñu at at ak ñuy ci am ak ku leen neex. Mm-hmm. ba noppi ñu ci biir LGBTisation de notre système d'enseignement loolu mooy projet bi. maintenant ndax ko delluwaat nañ ginnaawandi waaye. dañuy defarwaat dañuy defarwaat pour ñëwaat. Dame ci euh, maa ngi lay sant di la gërëm ci leeral yu am solo. mais yi nga xam na indi nga ko euh, tey ji parce que waxtaan ak yow toujours euh, dafa am yoo xam ne da ko ci jëlee ay position yu claire yoo xam ne au moins dina tax sénégalais yi xam ci dëgg-dëgg lan moo nekk ci suq. Hmm. éducation bi c'est important. Euh, kon man tamit di leen sant di leen gërëm di leen teg rajo ci beneen émission autour du micro incha allah.